meilleur Ngoye TV c'est leen di ziar dina la ñaanal jàmm di ko sàkku si mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu. mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah. acca salaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan seen site internet Ngoy TV ñu siyaar leen bëggewaat leen bu baax a baax a baax tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ñu bari nag ñu may woo vraiment ndax dañ ko tam ci man saa bu combat jub jub see rek ma def live. mais maman bi dañoo nekk euh, ci benn waajtaay boo xamante nii daal ay plateau yu ñuy organiser yoo xamante nii dañuy bëgg di éviter gars yi nag ñoom ñuy ñëw ñuy bokk ak ñoom waxtaan mais ba pare gars yi di woote ci loolu lañu nekk moo tax mais ñu bari ñu may woo ah naan ma kañ ngay wax ci combat Sarko ak nga xam ne mooy ñaa 2 ma ne ah loolu de combat combat boo xamante ni mën nañoo wax ci ñaa bu ndaw mën nañoo wax ci Zarko euh, li ñu wax ci ñaa bu ndaw mën nañu wax ci sarko mais ñiy demandé pour ñu wax yéen ñëpp jël naa seen numéro woo ngeen ma dinaa leen éviter avant combat bi ak après combat bi ñu waxtaan ci comme niñ ko daan defee ci yeneen combat yu njëkk yi euh, damay njëkkee ci Zarko sarko ndax day andi Kani ñaa bu ndaw maa ko mag ci làmb maa ko jiitu ci làmb dama koy damay dox ci kawam duma ko daan ko comme ni ma def Ada Fass ak ni ma def Diène kayre est-ce que Zarko loolu la war a bëre gars yi maa ngi leen di xaar ci commentaire yi tey damay wax que ne man su ma andi woon sarko dama ko naan ko yow yaay mag ñaa bu ndaw mooy wut si mais nag Sarko dafa am foo bëgg a egg te combat bi mooy tax nga egg foofu muy fan muy Sarko tey dafa bëgg a egg ci gras yi dem bëri ak ñoom la de Guiers ak ñoom Gris Bordeaux ak ñoom Reug Reug ñoom ñëpp Sarko tey dafa ci kan foofu la bokk ndax ku dem bu bëri ak ak guy gi dem ba bëri ak Sa yaa ngi ci biir foofu mais combat bi nag moom moo lay won ka sa palaas foofu dëgër na yaa nga fa da ngay dox ci kaw ñaabu ndaw duma ko daan ko ba Sénégal gi yëpp xam ka ne doo moroomu benn xele ñu jox la say moroom loolu jàpp naa ka ne Sarko bu ko béree suba suba suba ko combat mën na taxaw ko combat mag ñoom Gris Bordeaux ak ñoom yeneen ak yeneen yi mu laaj yàgg di laaj quoi sérieusement ndax bu defee loolu itam lan la fay fekk ci ñaabu ndaw ndax ñaa ndaw ku ne xam na ni doomu géejawaay la xele la am na doole mën na bëre ci combat bi ñu jot a siifur ñaa ndaw kenn du ko imposé lu ko neexul yo ñaa bu ndaw ku gis xam ka ne xele la bu ñeme entraînement te xele la bu am kattan macha allah kon li ñu mën a wax ci ñaa bu ndaw mooy kani daan sarko ci sa carrière mën na la yobbu fo xamante nii tey boo jógee ci combat bi ak ndam yalla rek xam fan la yobbu bo boo sarko mën nga am lu reuy mën nga béré ji ak ñeneen di ndaanaan lu leer la la wax ni kon da nga war tek sa bakkan ci combat bi ni def lu la war ak lo mën ak lo mënu ndax sarko bu na daane itam da ngay waccat jëlaat say morom ndax essaye say morom ñu op leen raw ñu ci op da leen raw kon pour le moment yow yaa war a def sa kéemti lay kattan tey su ma la andi woon ñaa bu ndaw nan laa lay béré lool loolu laa bëgg yéen ngeen xalaat ñaa bu ndaw nan la war a béré ak Sarko bu dee Laros moo ko sut mais Sarko kenn du ko jaay loolu Sarko bandi la ci biir géew Sarko Sarko est-ce que xam ngeen kan mooy Sarko ñaa bu ndaw bu arbitre soufflé lan la war a mën a def digganteem ak Sarko. lu déglu Sarko ñaa bu ndaw day wut si pour yéeg mais Sarko itam dafa ñëw pour won leen que ne ñii du ñu samay moroom dama bëgg a yéeg dama bëgg a fekkiwaat samay moroom kon combat bi cooyu ñoom ñoom ñaar booy xool ci ñoom ñaar kenn ku nekk daase la ci yow kenn ku nekk daase la ci yow ndax Sarko bu ko jéem bu ko bu ko xele bi daanee kan la Sarko di beralati day waccaat ci suuf. ndax fi mu bëgg a egg nii dootu fa egg kenn te Sarko dafa jël ko mbaa bi ak risque Sarko dafa jël combat bi waa Grand bi yëpp ne soxlawuñu ko mbaa bi ba mu jaante woon ba bëgg a bàyyi làmb ji ba pare nag dugaat ñu waxtaan mu jël ko mbaa bi au sérieux nag di entraîner ndax ku ne xam na ne Sarko Sarko kenn du ko jaay fit tuure yi kenn du ko imposer comme Niang bu Ndaw bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax combat bi combat buy neex la ci saison bi te jàpp naa ka ne dinañ ca xeex te dinañ ca bëre mais ñaabu ndaw nag lu leer leer lañ lay wax yaa ngi am mbër Zarko mu ngi la koy wax mais xam naa ne bàyyi woo ko xel mais Zarko mu ngi lay wax ne yaa ngi doog am mbër am ndaanaan to lu leer laa la wax nag ñaabu ndaw yaa ngi am bu complet la comme sarko mën a bëre am fit la def def daf edef. def bul sax sol ko lu mun def la koy def def la koy def même bokoy koy daan itam lu mo waxon dina ko def bayil xel bu baakha baakha baax ki ngay beurel jox ko cëram respecté ko sino mën nga ci am lo xamanteni bo ci jógee da nga nan xawmu won to sar ko ko dole gënoo ko ñeme waaw ñaabu ko yi ñaa sa sew ko itam bul jap kané yi daan na xalé yi fi gënonté te ñëw jaar ci kaw ñaa bu ndaw jallé boko défé nax sa bop lu leer la la wax boko défé mën nga joom joom bu reuy na bu ndaw bu amé ben occasion bu tolni ni bon bonu puso def la def ko exploiter donc bu ko exploiter lan mo lu tay fekk nak yow kon boye bo respecté xalé bu baax baax combat bi mën nañ ci wax mais comme na jours instant suba incha allah dinañ defaat beneen vidéo fekk ñu liir seeni i commentaire après nag bu gën a xuus ci combat bi bu baax a baax nag waaw bu fàtte itam kalaaf bi xam ne xale yi ko war a bere mention spéciale caatu euh, yoof ak njaay tin muy combat boo xamante nii combat boobu yàgg nañ ko dox mais mënu doon sotti mu taxaw ci kalaaf bi nee naa kalaaf mooy boole ay mbër yu waru doon bëre sax mu boole leen nga xam ne moo di caatu yaraax ak gamu géey man nag dama ci am benn combat muy euh, kii du Sané ak Kara Njaga Doole seet Njaga macha allah daal mais man combat boobu mooy sama combat ci bés boobu waaw combat boobu mo ci sama combat Doudou san ak njaga dole combat boobu mo masio spéciale xamna ka ne dina neex to dina yengu ndax dañoo tassé 2 millions yi fi ni arène nationale bere 15 minutes ken daanu sa morom euh njaga euh, mama bobu neexul wax mais entraînement bi desone na physique bi desone na Doudou san gene ko par ay points mais xam naa ne combat bii bu ko waajalee saa Sané waajal ko ku ne dugg sa gox ngeen ñëw combat bu neex lay doon bu leen fàtte nag du combat simple de combat door la mais seet combat bi nga xamante nii nag ardo dina ci am yoon Ndiaye Tine combat ak ki nga xam ne mooy caatu yoof ñaari xel yooyu man damay ñaan yàlla ki mën na daan ñu bañ a xeex ndax bu ñu xeexee deret dina tuur lii man maa leen ko wax gërëm naa leen ziar leen sama gars yi ma ne leen nii rek laa ah, toog waxtaan wax ak yéen yéen it ngeen joxe seen xalaat loolu rek lañ ci bëgg ah. ñu ngi leen di bëggewaat di leen ziarewaat bu baax a baax a baax jaajëf digam oui pour yow mi nga xam ne dangay ngay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew ak Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam woowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV ngir di am actualité ak information service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal. c'est le meilleur abonné vous di am say actualité ak informations information yu TV <laughs>